akbar allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahimi maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alayhim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 yaqulu ahlaktu maalan lubada ayaxsabu an lam yarahu ahad alam najcal lahu aynayn wa lisaanan wa shafatayn wa hadaynaahu najdayn falaqtacama alxaqabata wa ma adraaka ma alxaqaba fakku raqaba aw itaamun fi yowmin di masxabatin yatiman da maqrabatin aw miskinan da matraba thumma kaana min alladina amanu wa tawaasaw bilsabri wa tawaasaw bilmarhama ulaika asxaabu almaymana walladina kafaru bi ayatina hum asxaabu almashama alayhim naarun musada allahu akbar allahu akbar sami allahu liman hamida rabbana walakal hamd allahu akbar allahu akbar الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله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 fa amma man a'taa wattaqaa wa saddaqa bilxusnaa fasanuyassiruhu lilyusraa wa amma man baxila wastaxnaa wa kaddaba bilxusnaa fasanuyassiruhu lilusraa wa maa yuxnii anhu maaluhu idaa taraddaa inna alaynaa lalhudaa wa inna lanaa lal aaxirata wal uulaa fa anzartukum naaran talazaa laa yaslaaha illa al ashqa alladi kadaba wa tawalla wa sayujannabuha al atqa alladi yu'ti maalahu yatasakka wa ma li ahadin indahu min nicmatin tujsaa illa ibtixaa wajhi rabbihi al a'laa wala sawfa yarda allahu akbar allahu akbar